am na ñu fi jóge léegi ñoo xam ne li ma leen wax rek laa leen wax parce que ñoom bi ñu fi ñëwee xam na ne anniversaire Ndongo Lo mi ngi waaj a ñëw xam nga vraiment ñu koy rendre hommage di dem ci seeti ay xaritam yépp seeti ay doomu ndeyam mais yaakaar naa xaritu Ndongo Lo boo mën a seeti te ñëwoo ci Yves yaakaar naa yàq nga ko parce que ndonga am na ndey am na baay am na ñu bokkal ndey ak baay mais yàlla dalay boole koo xam da ngeen bokk jamono mu boole leen yàlla moo ñu boole maak moom. ñu nekk ay xarit màggandoo yarandoo defandoo lépp siiwandoo duggandoo ci simb yi demandoo ci kasag yi demandoo ci mbappat yi dem ci tànnbéer yi ba nañu commencé fréquenter soirée sénégalaise yi ba ni ñu commencé dugg ci musique bi ba ni ñu amee album ba am orchestre ba dëggal suñu bopp ci pikin ba pikin gépp waa Dakar waa Almadi Mermoz fu ne nit dafa jógee ñëw Pikine di baal si loolu mën ak moom ñoo ko def loolu rek moom dafa doy histoire waaw li ci des yu bëri nag doo ko mën a wax parce que fi ñu jaar yëpp ak temps xale ak temps foo ak bokk tubay bokk dàll bokk yére bokk casquette xam nga vraiment defandoo lépp ci àdduna bi loolu mënoo ko expliquer ci benn benn émission quoi. kii lan moo la gën a marqué ci ndongo. noo kook li ma gën a marqué ci moom moom xam naa ne daal ku bëggoon yaayam la da doon feeñ ba ci ay biir wayam. comprend nga papa ji sax ndeysaan dañu daan siisu léeg-léeg xam nga xam nga yow yaay sa yaay rek ngay woy xam nga waaye ku bëggoon yaayam la wax dëgg fa yàlla te nit ki boo bëggee sa yaay yaakaar naa ñu ngi naan doom yi ñu ngi rawantee ci ñaari waajur xam nga te xam naa ne ku bëggoon yaayam la te ku fonkoon papaam la ndax man loolu dund naa ko ak moom xam nga yaay ji fu ñu mës a nekk fekk nañu fa yaayam sax moo ko doon bëgg ndongolo ndongolo yaayam ni ndongolo fësal la yaay ji yaayam moo gën a bëgg ndax yaay ji fu ñu mës a dem di way rek dugg na oto ba fekkuñu foofu noonu fu ñu mas a taxaw di way simb rek wala tànn béer bu déggee sa mbapat ñuy way guddi day jug néegam ñëw fekkuñu foofu noonu xam nga loolu moom vraiment lu ma marqué woon ci moom la. Euh, ban tamit son moo la gën a marqué pour nga may ko mbokk internet yi yooyu seetaan. waaw bi mu woy làmb ji. may ci mbokk. sekk sekk néegi mbaam mbéng mbéng yoo fi géeje tey la samba yaa ne ngaan doo lay bëree. malamba njaayo ndongolo samba yaane ngaan doolay bëre ma njaaga baa nga daanu ca pamba diw ga jalaañoo lank naa duma bërek ma njaago diw ga dame laan bëre yaay booy baay booy dañuy bëre boobu moom daf ma neex quoi ku gis loolu xam ne loolu neex na man mi sax manqué yëg quoi comme ni nga koy waye nii ah ñeel waaw moom roy ko yombul parce que dafa amoon benn timbre vocal boo xam ne vraiment xam nga boo xam ne waaw ah, daf daf ci gañ dafa gamoon ba gañee ba baatam quoi xam nga wax dëgg fa yàlla dama ciy jéem rek mais ku da nga am sa sa sa voix bopp ak sa xam ne moom nga yor mais ndongo moom bosom moom vraiment beneen affaire la woon quoi. sa problème yaa ak Abou Thioub. aw benn musicien problème ci àdduna. parce que Abou Thioub dañ ko gis temps yii passé mu génn ne xaw ma da ko def sa anniversaire woowoo ko. waaw moom tamit toog na ñaxtu ko. mu génn gaa yi déggoo ñu laaj léegi lan moo tax loolu. du problème Abou Thioubale c'est mon frère sama rakk la sama rakk la sama xarit la barki démb ma moom fii ñu ngi doon def benn émission ma ak moom ak artistes yi nekk fii yëpp jeune talent yi fi nekk yëpp maa ngi nuyu Abdoulaye Timbo maire di nuyu xaritam Yessay Moussa Yessay barki démb fii bi muy def émission daf ma ko wax ma woo ci bolo woo ñoom mu Moussa Babacar. woo artiste band bi ñun ñëpp ñoo toogandoo di def émission fii kaam bi mi ngi ci biir collectif bi ñu def nii mi ngi ci biir groupe whatsapp bi ma ubbi dugal ci artiste yëpp moom laa njëkk dugal ci biir kooku amoo problème vraiment du ngeen seq lool sama rakk la amuñu problème defoon naa benn programme jotuma ko ci invité mais loolu taxaw na ñaxtu ko mais loolu jeex na dootul am sama rakk la